xalifa Niass ci suñu xalifa teewaayam di Seydi Ahmada Tidiane radiallahu anhu ñu ñaan yàlla yàlla yàggal ko fi tam wér lool ñu ngi sant yàlla bu baax nag di leen fay nuyoo di wax rek li benn woykatu arab waxoon law alim naa akum la farash naa qalbi suñ teeloon a xam ne seen ñëw bi yéen a ngi ñëw kon suñ xol yi la ñuy xotti lalal leen ko muy tapis rouge kon président Khalifa Sall sama xarit macha allahu sama sopé, sama leader ma ngi lay nuyu yàgg ñi nga andal ñep ñi ngi nuyu président Ousmane Sonko ma ngi koy fatali légui rek timis juñ julli won fi kéro sama bay mo jité khalifa bi nekk ci ginnaaw ñu bokk sapé fi julli sha allah mu wax fi wax yu rafet dafet dafet doxé doxé doxine bu rafet sha allah monsieur Youm ñi ngi lay nuyu di nuyu tamit ñi ngeen andal yépp Ahmed Aydara sha allah. borom leeral tabarakallahu macha allahu xel dal na yaakaar am na ci lii ngeen taxawal samp ko sémb ko ay gor bokk ko ay nawle muy ànd gor ak nawle ñu ngi leen ci ñu ngi ciy kontaan di ci invité képp koo xam ne rek yaakaaram mi ci Sénégal waaye nag yaakaaram mi ngi ci Kaolack ndàngaan duñ guddal comme dafa xat liñ foog wax ni sax fooguñu ñu wone dañ ko mëna wax ndax laata ci suba ba légui ñi ngi amé baat bu dess ak coono ndax fan yépp fan yi la ci ñun coalition bi leader yi ma ngi leni di xamal ne sëriñ bi bimu mu fi di leen xaar mi ngi fi toogandoog porte problème muy sëriñ Ahmed Babacar Niass mag ci sëtu mam Khalifa yépp di taw kër gi njëkk juddu judd baax ma allahu allah rajab lay Khalifa euh, doomu sëriñ bi taawam mi ngi ni tok ak simplitem mom dafa jël cëriñ gi jëndé ko ma sha allah di daan dolem di dundé ñaqam xamné cëriñ gi du der bi rek ak kurus gi rek mi ngi ni amna maîtrise euh université Cheikh Anta Diop opérateur mi ngi ni ubi société informatique di yëngu ci lepp lo xamné ci wala informatique la jëm dé nga di kilifa am nak ci lepp nak ak conseil ak ma sha allah mi ngi ni tok Rajab Niass suñ mbokk mi ngi toog ci délégation Serigne bi naka noonu it sa xarit Serigne Maguette Niass président mu ngi nii toog nga xam ne bi ma engagé woo ci yow rek la engagé wu bàyyi lépp lum nekkoon rek ànd ak yow ànd ak man ci ñu lay jàppale. naka noonu it Mouhamed Niass doomi El Hadj Amadou Niass euh, mi ngi nii euh, di frère Serigne Adi Niass mi ngeen gën a xam El Hadj Amadou nekk magu Serigne bi moo ko yar. Ahmed Niass doomu sëriñ bi mu tuddoog Ahmed Khalifa rakkam mi ngi fi toog ci jataay bi Khalifa Niass bi mu dippee baayam mi ngi toog ci jataay naka noonu it Cheikh Tidiane Niass nga xam ne ci ñi nga xam ne ñoo représenté président Ousmane Sonko fii ci kër gi mi ngi toog ci délégation bi naka noonu Seydi Makhtar rakk sëriñ bi moo moo ko mooy way juram ba léegi mi ngi fi toog naka noonu suñu rakk Omar Niass nga xam ne ku ko xam-xam ko ci tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ci télévision yeeg internet beeg fépp buñ tapee euh, zikrullah kër maam Khalifa turam mooy mooy feeñ ak photoom mu ngi fi toog Baye Dame Niass doomu doomu sëriñ bi mi ngi fi toog naka noonu ki nga xam ne moo nekk sës rek ci sëriñ bi di bëkk néegam di ko xidmal toujours nga xam ne soxlawul yére bu rafet soxlawul dàll yu rafet soxlawul dara dara dara li wajhillaahi rek laa nuridu minkum jazaan wala shukuran mu ngi fi toog muy Moustapha Wilane naka noonu it Ahmed Niass di suñu rakki baay mu ngi fi toog di euh, doomi alaaj babaka Niass euh, deuxième xalifa maam xalifa Niass kon président xalifa Sall naka noonu suñu rakk sëñ As Niass ak euh, sëñ Mouhamadul Mahi macha allah ñoom ñëpp ñu ngi fi toog buñ jugee fofu wëlbeuti lo xamné ben la wayé ñom ñoo lañu dëkk dalal suñ mbokk madina ahlu madina sëriñ bi barki dem rek wax na ko ci benn déclaration bu doon def ne madina ak lewna benn kër la rek maam alaaj abdoulaye Niass mo jur Mam Khalifa Niass mo jur Baye Niass mo jur alaaj babacar mo jur alaaj mut zeynabu mo jur Baye Mbaye Niass genn wal doom yi ñi ngi tëdd fi ak mom ñen ñi ñi ngi tëdd madina ak Baye Niass genn kër la kenn mënu ko xaaj ñaar suñ mbokk cheikh Bakary Niass Baye Mbaye ba xam ci Baye Mbaye ndey Cissé mu jagaatu ñoom Cheikh Cissé dégg nga ci fit ak njàmbaar ak fayda ak fulla man sama xarit la dañuy wax ci lu bari man ak moom macha allah mi ngi fi toog dégg nga teewal fi waa Madina yëpp naka noonu gis nañ suñu baay sëñ Omar Niass di sëtu Maam Laaj Babacar di doomu sëñ Ousmane Niass nga xam ne Maam Laaj Babacar moo topp ci Maam Khalifa mu ngi fi toog gis nañ fi tamit suñu xarit Omar Kouta macha allah délégation bi daal ku ma fàtte ñu yëg ne dégg nga kuy lim doo juum waaye da nga Euh, président Khalifa Ababacar Sall yow ak gor yi nga àndal ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci suñ bis bi ngeen ñëw bokk ko ak ñun Wolof day wax ne nit kenn du ko xeebal ñeent kenn du ko xeebal bisam muy xewam kenn du ko xeebal kilifaam kenn du ko xeebal tamit jàngoroom kenn du ko xeebal dépense am macha allah tagg yontu yàlla Muhammad bisu yontu yàlla Muhammad moo jot euh, ngeen ñëw. yëg ne lew nañu sen bokku nañ ci ñi nga xam ñi ngi judd yonte Al muhammad sallallahu alaihi wasallam. te ci këru diine yu magi lañ bokku ngeen ñew bokk ak ñun ci bis bi na ngeen yëg ne fi ngeen ñew ni ci sal bi ngeen tok ni di salu mam khalifa ñes nga xam ne la daan tok di yontu bi daan ko fekk seydi ahmad tidiane daan ko fekk mboolem nit ko wax di ko fekk lepp lo xamne yene ngeen ko rek ngeen ko yene ngeen ko amé fi ben soxla mosu fe ñew te tagu fi te di tag bepp soxla ben soxla mas sta ñew fi di tak, kon ñu ngi leen ni sant bu baax xeyna li serigne bi wara wax ëlëk porte param dana ko wax deng serigne bi bu paré bu paree mu ñaan ndax euh, ki de wax dëgg yalla, ku baax la ku gëm yalla ku and ak yalla tok nañ fi njiitu rew mi ñew fi mu nako fi ku nekk di dem waye ñun ku ñew fekk ñoo yalla rek ku ñib ku dem bàyyi ñoo yalla kon nit bu and ak yalla du du ragal du raf mooy kilifa gii ngeen fekk fii mu toog macha allah ñu ngi koy ñaanal taxawaayam yàgg ñu mu am ku cofeel la nag ci yéen man xam naa ci dara waaw danañ toog danañ toog danañ toog danañu toog toujours ñu toogee bari na lu ñuy nekk ndax man fu mu dem ci àdduna ñaareel bu ma fi nekkee man maay toog yor otoom mu toog sama wet ñuy dawal danañ waxtaanee lu bari te man xam naa kum fokk man xam naa ko te xam naa ne yéen ñii ñi ngeen ñi mu gën a fonk ci ngeen bokk kon kon coalition la président Khalifa man dama daan bëgg di toog di gàmm ci yaw di wax ci yow lu bari macha allah maa ngi maa ngi la yëgal ne ajaar na fi njógu fan yëpp mu ngi oote am dëj moo tax ñëwut waaw am dëj doomu kër gi la ko moo moo ñoo daan bokk fii di la dalal kon bu amee empêchement ba mënta ñëw kon dañ leen di xamal ne nafi gàllankoor moo ko moo ko tënk ndax maamam bi jur bi jur baayam jël na soxna domam domu xolam jël jox ko mam Khalifa ñes muy soxnam kon fofu la mbëggeel mën yam ci talib ak serigne kon dal ci gàttal dañuy dañuy teunk wax ji rek jox suñu wayjur serigne Ahmed babakar ñes mu mu mu waxtaan ak yeen tabarakallaa comme da ngeen am réunion euh, buñ paré khalifa bi ñaan ñu ci jamm ak alaykum wa rahmatullahi wa wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala waaw ñoom ñoo war a wax xalifa xalifa da ngaa jóg ñoom ñoo war a wax ñoom ñoo war a wax bismillah sëñ Babacar nag defe naa li li xalifa waxoon moo gënoon a parce que parce que soo waxee ba pare so so mais soo waxee waxal nga ñu yaay suñu wayjur yaay suñu kilifa xam nga li ci suñu xol ak suñu xel amul donc soo ñu wax soo waxee rek waxalaa leen nga ñu ñun. amul benn ñun ñëpp. yéen mën ngeen a <laughs> ah. nag ci turu Cheikh Ahmed Tidiane Youm. parce que moom moo waroon wax fii. mais mu ñëw ba fii ni ma naa ko waxal. donc may ci turu sëriñ Cheikh. ah suñu waajur bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare ñoo ngi santaat bi mu ñu ñu mën sa kanam fekk fekk fi kilifa fekk fi suñu wëllëre di guide pour ñun damay wax sànq ñoom Ousmane parce que ñun ñoo Khalifa fàttali nako ko wa fàttali nako ko dañ fi ñew ci cadre coalition bu tuddu yewi Askan Wi muy lu reuy je suis sûr que suma baye suñu wayjur wax ci yewi Askan Wi moma ma xam nu ñuy yewé askan ak nu ñuy jappalé askan parce que nak ñom ñaar ñi dañu doon sëriñ mais dañu doon sëriñ ñu xam askan rew mi ak nit ñi allah fi ñe da ngay jang soo nangoo déglu rek di nga dégg da ñëw donc ci coalition boobu ànd ak Ousmane Sonko xam ngeen ko ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Niass xam ngeen ko moom moo fi toogal Serigne Moustapha si Al Maktoum Ahmed Aïdara kenn du ko présenté moom mooy présenté boppam docteur Mbodj ma nga fële anama mi ngi moo fi nekkal euh, euh, Déthié ñu fekk si fi nag suñu responsable yi nekk ci coalition bi yëpp ci Kaolack ànd ak Jokal comme ni mu ko wax tànk yi suñ ko waxuloo nit xam ngeen ko ay doom ay taalibe ñoo ñëw ziyaar ci seeni wayjur seeni kilifa pour bokk ak ñoom li nga xam ni moom la ñu dëgmal te képp kuy jullit su jotee nga war ca def la nga ak la nga mën te def ko fii nag moom dafa defu ci defukaay bi parce que ëtt bi ëttu yàlla la ëttu yonent bi salaa salaam ëttu jaamu yàlla la ëttu lislaam la moo tax ñëw fi di def ci loolu mbégte la sawarte la yéene la yaakaar la gu mat sëkk gu dëggu dogu ci ñun ñëpp parce que xam nañ ni fii suñu fi ñëwee yàlla rek nañ fee fekk yàlla rek ak yenn bi sallallahu moo tax ñu ñëw root si wax ni lii ngeen di def ñun ñëpp ko bokk mais yéenay suñu wayjur yéenay suñu yaakaar yéen la dikk jiital yàlla na yàlla mottali yaakaar ak yéene gi julli di am ci yéen yàlla na yàlla di matal yaakaar nañ leen gannaaw ba ñu jiitalee yàlla ak yonent bi ak suñuy wayjur kontaan nañu trop nag ci teeru bi xalif bi dafa nekk koo xam ni c'est un homme du monde dafa xam àdduna maa ngi tooñ Ousmane ni ko suñu kër gee ñu nekkoon congé moo ñu ko gën a xam fuuf donc xam na àdduna ku fi ñëw di ko wax dalay xool rek di yee di ree parce que dafa màndu lool mais li nga koy wax moo la ko gën a xam mu doon aussi nitu nit ñi loo ko ci waxit dalay xool rek di ree parce que ndax maanu teem moo tax sëriñ bi tànk yi tànku ñëw seet si way jur la root si la parce que guddi gi ñu jëg man yéen ñu gën a xam la mu wund yéen ñu gën a xam lañ koy séenu leen ñu gën xam lañ koy yaakaar ñu ñëw di leen ziyaar di leen ñaanal bala ñoo sàkku ñaan di jiital ci ñaan gi ñuy ñaan lu suñu sama turandoo me sama turandoo ak sama genn wàll gi ak xale yi si nekk yépp ngeen boole leen ci ñaan gi parce que nag réew mi mi nga xam ni moo ñu itteel solool ñu ba tax ñu jël suñu mën-mën suñu bëgg-bëgg suñu yéene suñu am-am suñu xalaat yépp def ko benn say mu tuddee ko yeewi askan wi naam yéene la rek parce que xam nga ni yàlla yeew mooy yeewi te ku bëgg a yeewi nag da nga yeewi sa bopp mais ñun dañu bëgg doon set force inspiratrice et boo xam ni mooy pousser askan ni mu gën a mën a yeewi boppam ak ci ni mu gën a gaawee ci ni mu gën a rafet donc yéen yaakaar jooju la ñu ñëw ci pour diis leen ko ngir ñaanal leen ngir ñaanal ñu ci yàlla matal ko yàlla mottali ko yàlla rafetal ko ngir mu jëriñ askan wi jëriñ réew mi parce que nak liñu tax jóg nous ñu gëna xam réew mi li fi na na metti na nit ñi son nañ ñu bu bi muy élection locale élection koñ la élection la mais surtout élection wu askan la parce que un problème au bopp la seen kër yi di taa seen mbedd yi doxul seen école yu rafetul yii seen docteur yu manqué yii nit ñi ñoo ko gunna ñoo ñu ko gën a xamal seen bopp mais dañu bëgg boole seen bëgg-bëgg ak suñu yéene fexe ba yàlla teggi ko loolu tax ñu tuddee suñu bopp yeewi askan wi mais dañuy ànd ak askan wi pour yeewi réew mi donc loolu mooy solo tànk yi moo tax ñu doon mbooloo doon say yu ànd ñëw fii ci loolu di sàkku ñaan mais bala ñoo sàkku ñaan ñu ñaanal leen ñaas ñaanal leen soo amee sa wayjur ak sa kilifa mbooloo ak àdduna yaakaar ko yàlla teg leen natt boobu yàlla na koy oyofal parce que ku am soxla ñëw ku am njàqare ñëw ku am bëgg bëgg ñëw lay tax ba ku fi dugg ñibbi ak xel mu dal ak lu te te te xel bu sedd yàlla bi leen koy defal yàlla na koy yokk tout le temps yàlla na koy yàq yokk tout le temps yàlla na yàlla fëgg bopp yi dëgëral tànk yi lii fi seen way jur yu liggéey te ngeen am la de tâche de pérenniser ça yàlla na ko yàlla oyofal mais yàlla na leen ci yàlla may ndam na leen ci yàlla may fii daal kër gu ñu naw la kër gu ñu respecté la parce que këru diine la ak yàlla rek yàlla na ko fi yàlla saxal ah ñuy sàkku ñaan nag saku ñaan ngir ñaanal ñu suñu mébét ak suñu yéene yàlla mottali ko élection locale yi ñu dëgmal élection législative ñu yi séenu ak élection présidentielle yii ñu jëm yàlla nañ ci yàlla may ndam ndam bu yokk bu weesu suñuy njort ak suñuy yéene parce que suñu ànd gi ànd gor la ànd nawle la mais ànd jullit la ñu gëm yàlla lañu wóolu yàlla doyloo ko jiital ko ci lu ne te liñ ci dox ak wax du suñ pour ñun pour askan wi la yàlla na ko yàlla def en tout cas yaakaar nañ leen ci yàlla na yàlla mottali seen ñaar yéen it nag yàlla leen si yàlla bàyyi bàyyi leen feeg wér bàyyi leen feeg tal bàyyi leen feeg man bàyyi leen dal ba seen waajur yi lii ñu leen teg yàlla mottali ngeen gunge ñu nag ba ca kanam kanam ak fan wu gudd ak tal loolu daal moo doon kàddu yi xam nga ndax am na ku ci bëgg a ko Cheikh yow bëggoo wax barkeelu barkeelu bon bëggul bëggul barkeelu ba nag yàlla na yàlla mottali jërë ngeen jëf Ahmed Aïdara <laughs> pourtant yaa fii shérif de voilà bon daal xaw ma ndax wax ji jub na mais mais mais xol xol xol la ñu waxee ak yéene yàlla na yàlla barkeel lépp yàlla na yàlla mottali jërëjëf Niass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 wa safiana wa rajaana wa xaaidana ila jannati naim allahu wa sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam président Macky Sall ak ñi nga àndal Sonko Khalifa Sall dama dama day jum ñi ngi leen di wax marhaban wa ahlan wa sahlan ci seen kër kër gi seen kër la ñi ngi leen di wax dalal leen jàmm ñi ngi leen di tatagal ci turu Mawlaay Seex Ahmad Tijaan moom maam Xalifa mii kam neen moo fi wuutu maam Xalifatul Haaji Muhammad di juróomeelu xalifa maam xalifa ñas kan mooy maam xalifa mooy taawu alxaaji abdullahi ñas njëkk a dégg xalifa fii 1922 ba 1959 kan mooy alxaaji abdullahi ñas moy mag mi fi jitu fi ci saalum njëkk fe dem makka haji njëkk fe dem faas siyaare ci seex ahmadi tijaani njëkk firi alquran téeméeri yon ak ñeenti yon ci dundu bo xam ne ñaar fukkeel la ak juróom-ñaar koku mo jur mam khalifa kan moy mam khalifa moom la bayam denkani won fukki at at mu jet mona luma len waxon koko nak moy wajuru sang bu tedd bii bi ma la Cheikh matiel mo len di nuyu Khalifa Sall ak ñi nga di dalal jamm ci kër gi deglu nañ seen waxtaan dipi Jokkel ba ci mohammed Khalifa mi ba ci Khalifa Sall lépp dégg nañ ko sa duñ wax nag la banoo Israël ca Moussa ne ko sami'na wa asayna déedéet dañuy wax sami'na wa ata'na dégg nañ li nga wax te ànd nañ ci Yewwi Askan ñaari nit ñoo ko mas def ci ay yónnent yàlla yebal na téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay nabi ak mursal ñaari nit la ma yebal na leen dem leen abi yewi seen askan mooy yónnent yàlla Muusa xam leen lañ fa de histoire ba xam ngeen ko ak yónnent yàlla Yuusuf ba ñuy jëlee mbokkam ya ca àll ba dina indi misra kon bu ngeen jógee jaar ca yoon woowa démb mooy tey parfois nag léeg-léeg mu xaw a jafe ànd ak ay conséquences waaye nag inna allaha maa sabiri amul lenn lu yomb ci àdduna amul de moo tax yàlla ne wastaino bi sabri wa salaati dimbalee loon muñ ak julli lu julli foor foor léeg-léeg dana am conséquence yoo xam ne muñ moo gën a foor julli te julli jaamu yàlla yëpp moo ci jiitu waaye parfois nag yàlla ne dimbalewoo leen muñ ak julli wasbir wa ma sabruka illa billah kon mbooloo mu tedd mi gan ñu tedd ñi gan ñu baax ñi senegal yëpp di len xeccu ñu ñew bay ñep jéggi len ñew ba ci kër mam khalifa gi yeg nañ ko lool ndax amul kenn kuñ laaj te kuñ ci jox loxo te mu ñoo jaar sa tour ak sa sant loolu nak moy xamel senegal dafa xat wa tax lu rafet ak lu bax rek fi xat ndax bo ci téré bi ñuy wax rayda dafa wax benn bayti bu am solo تكون نيك ورن كو دوندو من انما المرء حديثا بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى اسغور سو نيك وقتان لا سي غناوام سيغور ني نكاي وقتاني جيلي فو نريومي اك لوفي مان دي خيب عبد جوف ني نكاي وقتاني ابلاي واد ني نكاي وقتاني كون فيدل وقتاني امول كون نك نغا فخ way kat bi na nga fexé nga bok ci waxtan ñi ñi waxtané ëlëk ci nim gëna rafété بسم الله نيغي لين دال سين كير ديغ نان سين واخ لين تاخا جوك موي غام غام موي لان موي ماغال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجوركي واخ نكو نانا فبتعظيمه امانه بسلام وبصرى اتت به الانباء من بوكو نتي ماغال غودي يوننتي nga am nga maam xalifa mu ne am ngar assurance ren ba déwén oto nag boo ko assuré tout risque ah looloo laa rek nga naa man dama assuré waaye nag assurance fii nga am waaye nag kii daf ne ko màggal yónnent bi am assurance ren ba déwén ci yàlla assurance nga am ren ba déwén dara du la gàllankoor ku la bëgg gàllankoor yàqu màggal goo di yónnent bi nag kenn jiituwul ci li ngeen def déparé fu ngeen man di jëw ba ci kër maam xalifa gi nga xam ne bokk nañ ci mag ñi nga xam ne liñ wax sa lay kenn waxu ko ko waaye na daf koo jege woon lool na ndax maam xalifa moo ne saar rasulillahi ne ko min nuurihi kullu badrin yabdu wa samsu sawaadi mu ne lawlaahu ma kaana kawnun iskan aynal kamali mu ne ci leer ak yonent bi ci la leer binde lepp lu man di fana ci leeram gi ñun ban leer mune weer wi bu amé fukki fan ak ñent leer nañ ñu ne ak lan mune jant bi sax day xamne bu na nañ rek lamp ya fay mune ci leer yonent bi la jëg kon bu len taxé jóg sang bobu ngeen dox kilomètre yi ngeen dox tàngaay wek poussière bi ci la ngeen ñew ba fi ñew sang bi ah, mënu ñu wax mudul marhaban bikum yalla yalla may leen seen ciaf ñun ñep Sénégal lañ na rafet lum yag yag day jeex kullu man alayha fanin lu fi man du nekk du nekk dana jeex kon nañ bu rafet bu baax médaille da nag yow dana lay deglu bu baaxa baax boy wax sax ci khalifa sall do wax khalifa khaf wax kon xam nga dana lay deglu amul ben suba buma luddul amul sa revue de presse mom bona ah, bu demee ba jax nga na ah, jël njab ngi nak abul lu lay kon te nag xam nañ waajur yi nekk fii suñ xarit lañ woon bu baax a baax suñu wëllër lañ woon fii ci kër ayib ak ña nekk fa nekk yow ñëpp xam nañ kon yow dong ci kër gi ñu ngi lay dalal ci sa kër président Khalifa Sall say kóllëre xalifaa ngoog am na fu mu mën na fa mënoon mën nañ lañ ko lu nekk nag lu nekk nag ma mënal nañ ko ko lu nekk nag ñu ngi koy woo lu nekk ñu ngi koy def waaye sama baay dafa noon as gor bu mu toxu bu ma daan tukki ma man Aliou Jamet mu ne ma fa nga daan dal démb ak bërki démb bul dem fenn ba ma rafet ba nga toxal dal wolof nee na rek xañ xañ day xañ a wërsëg ragal péete day xañ a wërsëg ah moom day dogu na ci yéen lool te nag li ma jaaxal mooy gone ñëseen ñi nga xam ne ëllëg ñoo fi nekk ñëpp a ngi nii toog pourtant démb ba léegi ñu dajee te gisuñ ngeen tey nag ñoom ñëpp ñu ñëw kon lu leen tax a jëw jéen ñii ñeen a tax gone ña yi ak ñu Medina yi ñu ngi nii toog ñëpp a ngi nii ma ci lim kenn ba ma xëyee damay recevoir ay délégation ba ngoon mosuma leen cee gis ñu toog waaye tey ñu ngi neen ñi xujj ak seen i bët kon am lu nuñ bëgg kon yen ñëpp nag mag ñee gone yëpp liñ bëgg yàlla leen ko yàlla defal yal na yàlla tànn senegal yëkkati ko yal na yàlla jàppale réew mi yal na yàlla yokk wërsëg wi yokk jàmm ji yokk teraanga ji ci zahir ak ci baatin kenn ku nekk bëgg-bëggam moo ko xam ak yàlla mi ko bind kenn ku nekk bëgg-bëggam yàlla ko yàlla defal ci barkeb weeru gàmmu wi weeru am na solo fi may jeexalee rek suñ sang bi alxaaji Ibrahima mi kii wuutu daf ko daan wax pour ñu fonk guddig yonent dafa daan wax ne yow borom kër gi xëy nga suba amoo dara nga làmb sa boos fekk fa xaab ab junni xëy na nga ne soxna si demal marché jëndi ak ganaar rey ko ñu jox ko gone yi ngir ñu terale ko yonent bi akay ah loolu euh, ab yónnent defoon na ko bu bari doole boobu te doon buur ak lépp Suleymaan keroog ba muy gànnaale bindeef yi dana yàlla baal ma ba gànnaale bindeef mu ne mënoo ko picc moo jógee fale rek indi luppam njéeréer daal di ko koy sànni ne ko lii fi nekk da nga dolli ko ci ñeex mi kenn ku ne la nga xam ngay joxe ku nekk olof ne kam la nga xam ne ngay dugeeb géew alaaji ibrahima ne ñu ganaar ga mu tëdd soxna si jëlagu ko weñ dal ca ganaar ga dal mohammed mi wala mu dal Cheikh Tidiane mi wala mu dal wilaan mi weñ woowa kum dal si yaram xaaram na safara ka ganaar ga nag ka rey gëléem yi nag ka nag ya nag ka déparé ndakaaru ànd ak tàngaay ba jëpp te kan taxu koo jóg du nag am na suñ benn maamu maamu xalifa la maamu Baye Fall Cheikh Ibra Fall dana woon sëñ Touba maa ngi xaar rek ba yàlla fay waxkat yi te bàyyi te bay jëfkat yi kon ala kulli xaalin luñ mën di wax mënuñ leen a dab président Ousmane Sonko ñu nga lay masawu bërki démb rek di xew dégg nañ ko waaye nag yàlla ko mu bëgg nattu la ñu gërëm la maire de Guédiawaye ah ñu ngi lay bàyyi xel ñu ngi sa maam ndax bis bi yëpp sa maam la démb moom la barki démb moom la tey moom la ëllëg moom la yaakaaruñ kenn ku dul rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu xalifa àndat sama waa ji daal laa daje laa gisut mooy eh, nan baro badara baro <laughs> moom de laa gisut te moom musuma gis xalifa Sall mi te gisuma ko mboolem famille maam El Hadj bi nag ñu ngi lay gërëm fii moom la El Hadj Abdoulaye tëdd mboolem njabootam gi yëpp ñu ngi fii ci xabru bi ñu ngi ànd ak xalifa Niass foofu sang bu tedd bële Mawlaay Seex Ibrahim moom la yàlla sedd Medina mu tëdd foofu xataa yaayam mi ngi fii maam Astu Jànq waaye nag li ma ko baaxee def te du ma ko wax te du ma ko wax Medina ak ña seen leen di xàjjalee ke nang ñemewuma la genn kër la Abdoulaye Niass képp la lu fi waaye am xasanatun min xasanaatihi lu waaye am fu mu di doon ak loo man di xew ci diggante ñaari kër yi Abdoulaye la ko jox kenn joxu la ko kon ala kulli xaalin yal na yàlla defal leen tawfiq tey taysir wax ji du bari yal yàlla sàmm leen ni ngeen ñëwee bay delluwaat yal na yàlla sàmm ba ngeen xàgg feen jëm yàlla ba leen dajeeg seytaane yal yàlla taxawu leen ci zahir ak ci baatin yal na yàlla guddal fan yi àggale mébét yi waaye lépp nag yal nay jàmm kenn xamut jàmm ndimbal kenn amu ko wa man nasru ila min indillahi ndimbal yëpp mu ngi jóge ca yàlla yal na yàlla dimbaleel boppam baat keb laa ilaha illa allahu sayduna muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam baat bii la yàlla waxoon la baat bii moom la aadama waxoon yàlla jigal ko moo tax ma tëjee ci wax ji aadama dafa nekk ci àdduna yàlla bawalu ko bakkaaram ba mu tëdd ba mu yàgg mu jóg ne yow yàlla yàlla nga ma baxal ci barkeb laa ilaha illa allahu muhammad rasulullah yàlla ne ko jégal naa la waaye baat bi foo ko xamee ku la ko wax baat bi génn guddi mané ko ni nga maggé ni nga ni nga amee daraja ak yow yaay lepp haras ba nga gëna fonk buntu haras yaa ngi ca ilaha illa muhammad rasulullah ma xamné ko def tawasul ci loolu yalla dana la jéggal mané ko jéggal na la motax ñu bu mujjee kaddu gi ci loolu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi serigne bi neena mo ngi cant bu baax di gërëm nana mo ngi nuyu president Khalifa Sall di nuyu president Ousmane Sonko nana mo ngi nuyu yeen ñepp délégation bi ngeen andal yëpp mu ne wax ji frank layna mu lim warona wax rek ma sha allah part problème bi di Ahmed babakar wax nako ko mu ne ñun nak njaaxaanaayu yu lañu tëddee ku ñew dinañ la ñaanal. waaye yàlla mi nga xam ne xam na man na sañ na noppi na yàlla moom noppi na noppeek yàlla googu mu ngi leen di ñaanal kenn ku nekk ci yéen sa yaa ko xam yàlla xam na ko yàlla na la ko yàlla defal yi ni tamit suñu càkkutéef yëpp yàlla nañu ko yàlla defal ci teeru bii nga xam ne moom lañu teeroo ci tax yàlla bind ñëpp ndax bu taxutoon ak yonent bi sallallahu alayhi moom ak yéen ak ñun ñëpp kenn du fi toog di wax waaye borom guddi googu danañ ci ñaan ci darajaam ci darajaam xettaliku ci daraja suñu borom yàlla mi nga xam ne mooy borom lépp ak fépp ak ñëpp mu defal ñu lépp rek lu ñu bëgg ngeen tàllal loxo yi yéene seen soxla yi min yaa rabbal amin yaa rabbal amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal amin amin yaa rabbal yàlla Xalifa Sall yàlla daf leen ngeen nekk ay président waaw ah, Xalifa Sall